tey nag euh, yàlla dogal sun émission bu njëkk tey ñu ñëw ci kër suñ maam suñ sëriñ muy sëriñ Modou Lo Dagana wax dëgg yàlla ñu di ci sant bu baax wax bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla ñu fekk fi xalifa bi ak mboolem kilifa yi muy sëriñ Xaadim Lo ak sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ak sëriñ Sibori Lo kon tey daal fii lañ def doxantu muy seen émission ëttu diine foo yéene xam si sunu maam jooju lu muy néew ko bari rek ñu jariñoo ko kon dañuy daal di jox sëñ bi kàddu yi bu ko defee rek mu tijji bu ko defee après sëñ daam ñoŋal si ay kàddu ci sunu maam jooju kon bisimilah sëñ bi. a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ah, baax na da ngeen a ñëw fii ci kër sëñ Modou Lo Dagana ngir bëgg a xam ci ay jaar-jaaram dara loolu nag ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax ndaxte ñëw ci kër sëñ Modou Lo Dagana ñu di ay sëtam ngeen bëgg xam ay jaar-jaaram ba tasaare ku ci àddina bi loolu ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm bu baax a baax di leen dalal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 alhamdulillahi wasalla abada ala lasi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawid nawalil wali asalaamualeykum wa rahmatullahi uh, yéen ñi nuy seetaan ñëpp ci seen bi seen set noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen bëggee itam yéen ñi nga xamante ni yéenay waa seen set nga xam ne tey da a doxantu ba fii ci ëtt bii di lenn ci ëtti seexul xaddim mi di kër seex Ahmadou Lo moom Dagana ngir barkeeloo ko ci tàmbali liggéey bi ak xam kan mooy sëñ Modou Lo Dagana ak jaar-jaari sëñ Modou Lo Dagana incha allah bi danañ fas yéene jëfe ndigal li lépp luñ ci xam luñ leen mën a wax te mu leer danañ leen ko leeral xanaa kon <clears throat> ñu jox la micro eh, bi waaw seigne dam ma sha allah ñu nuyu seigne xaarim si kaddu am soleil ci si dalal bi nuyu dam ma sha allah kaddu yi rafet na waaw seigne dam buñ ñu xam seigne modlo Dagana manam moy kan ndax dafa melni mom dafa bokkon si cheikh yi ku tedd ki manam mom si lo xamni dal nit ñi dañ ko mëna jarriño ndax mom dafa donon si kangam yu mag te melni na ni bawal gi ñu bare bare jëlale na mbacke mais àdduna am na ñu umpale sëñ Modou ñu bëgg a xam ba xam moom fan la fekk baax waaw fan la fekk baax moom sëñ Modou Lo maanaam lan moo waral sëñ Modou dagana ji loolu daal bëgg nañ nga indil ñu si ay leeral yu am solo yoo xam ni danañ ko mën a jariñoo jërëjëf waaw sëñ bi sëñ Modou Dagana de kenn la ci waa bokk ci askanu Looyeen askanu ndam nak defe naa ni ñepp xam nañ leen waaw ndax liñu liggéey ci réew mi ci diiné liñu liggéey ci alcorane manam askan la wo xamanteni du ñuy laajte señ mat lo dagan nak ci askan wé la bokk bu ma la dé wax rek euh, ci gattal ak silsilam dama la daan señ mat loo dagana ku ñuy wax sëriñ subéeru lo moy wajuram sëriñ subéeru modu ngoy moko jur manam dañ ko duppé maamam mudungwe ngay momé Siré Kumba mam sene ba Demba binte Mokhtar Dam Dam isa lolu moy askan wi euh, bok ak sohna euh, ci walu way askanui wu itam soxna la tudd bok ci askan wi nga xamni kon manam man nañu wax ni ab bete bete la ñu wax ni señ mud dagana ma nga euh, feñé ci dëkk bu ñu wax ndam kër mud fatma ci gannaaw lugo waaw boo jógee Louga jëm Ndar euh, dëkk ba mag lay féete ci sa wàllu càmmoñ <coughs> foofa la feeñe euh, ñu jaarale ko fa ñuy jaarale itam doomi soxna yëpp mm, jàng ci alxuraan ba géeju ko man ko bind kaamil jàng xam-xam bi ñu daan jàng ca jamono ba àgg fa mag ña daan àgg ci jàng xam-xam ba mu ca jógee itam mu nekk ca la mag ña daan def muy lan jàng ak jàngale ak liggéey maanaam di bay di dunde ndax jamono jooju loolu xewoon ba ni ku tedd ki feeñe bi ku tedd ki feeñee itam woote woote mbooba mu wuy ji ko comme ni ko ñëpp wuy jee xam naa foofu ñaari wuute wax nañu fi ndax am nañu wax ni ak jébbuloom euh, gisante woon nag sëñ bi waaye li gën a wér mooy ak jébbuloom ca euh, Mayomba la. fa mu gisee sëñ bi waaw. waye dal yalla def na ci mom ak njambar aku fit akum xel ba tax na ndax jamono yoy itam demon nañ ba bi fi señ bi joge ken ñi metut won tudd wax señ bi ku ñu wax ñu ne mm, koko sànku na xel yi jaxaso won nañ menn mom rek mo jëloon volonté taxaw waxaku njabotam ne len manam dana ko gis wala dootu len ma gis de nag su ngeen toogee nag ren ba déwénte xamu leen ci man dara dem naa daal seet sama sang ba su ngeen toogee nag ba déwén nag xamu leen ci man dara ku mën a toog nga toog xaar ku mënta toog itam waa kër gi yeewi naa leen waaye daal moom gis sëñ Touba daal moom danaa ko def. booba itam nag wax dëgg yàlla seex si bari woon nañ ñi ko gën a jege woon bari woon nañ lool waaye ku kum jaraloon nag volonté gu toll noonu jaay sa bakkan ngir gis sëñ Tuuba moom ci sa Ahmadu Lo na rek lañ ko gisee. loolu itam suñ boroom dimbali ko ci comme ni ko sëñ Moussa Ka di waxe ci way ko rek xeyena ko ki bisub talata namu ci geej ga bañu na khatmata ba wer wa dil se ci dewen ak bis ba la bamba ngir pas ba dal di tambali nak netal yon fam jaare jaari banjul jaari walu sigi cior ba nim deme mayom ba suñu borom dimbali ko itam waye lolou dañu bëggono xam manam si eh, ban at la don tombel mom bi mi dem di jëbbulise ku tedd gi si mayomba ndax loolu loolu loolu lu yàgg la te loolu volonté la daa mel ni booba dem maa yomb yombul yombul ndax lim nim yombee léegi yombul woon ak it booba moom euh, sëriñ bi boo ko dee boo ko dee boo ko dee takk si at booba si euh, atam ñaata ñaata ñaata lay toll dal ak maanaam am na comme àndaloon booba di dem di jokku si ku tedd ki wala déet waaw loolu tamit bëggoon nañ ko xam bu baax a baax baax waaw dafa mel ni da xam naa <clears throat> booba atam ndax eh, am na ñu wax ni eh, boo ko xoolee boo ko dee nat yow da nga ko mën a xam ndax am na ñu wax ni mille huit cent cinquante nangam la cinquante huit am na ñu wax cinquante sept boo ko seetee nag cinquante sept ba sëñ bi mi nga dem ci géej gi mille neuf cent quatre vingt quinze ba ca déwén sa la fi jóge waaw am na ñu wax ni ci 97 ba am na ñu wax ni ci 96 bi ci la fi sëñ eh, Modou Lo Dagana jógee moom it waaye ci biir 97 bi daal ca la ca la ca la sëñ bi. nga xam ni loolu moom boo ko xoolee daanaka ni xam naa xëy na ñeent fukki at yàlla ci manqué du bari. foofu foofa itam gisee mag sëñ bi itam am na ay ay ay ay kii ndax ni nga ko waxee sëñ Modou Lo Dagana moom mi dem àndut kenn moom dong moo ànd. xamul woon itam exat ki muy seeti fan la nekk nga xamante ni dafay jóg jébali fa waaw yorul woon itam yóbbal boo xamante ni nii dana ko mën a yóbbu waaw ndax mënee baru na maçon na liggéey na ci docker yi lu nekk def na ko euh, ngir am lu ko jàllale fu mu dem itam dana toog gëstu jëfandikoom xelam ba xam fu mu koy dégg mu jël yoon woowa noonu la def looloo tax yoon wa dëng waaw ba ni ko suñ borom dimbalee ak bëgg-bëggu sëriñ bi mu fekk ko foofee ca ca ca dañuy ñëwaat rekk si suñu baay sunu sëriñ sëriñ si Boori Lo eh, ñëw rek si moom moom it ñu laaj ko tuuti rek si suñu maam ji moom tamit eh, lu mu si xam rek mu baaxee ko bisimilah. demee ci taarix sëñ Moussa def ne ki seet Seex Bamba ama ay sasin ay sasin mooy cent 1318 delloo si baam Seex Bamba ama kay sasin mhm. ka sasin mooy 1320 mhm. kon ñaari at la am ak moom foofu à peu près delloo si ko ginnaaw bi sëñ Touba am juróomi at géej gi la fa dem am moom ñaari at mhm. ju tegal andi ko loolu daal xam naa ko ci waaw bu fekkee dellu nga ci taarix ci sëñ Moussa saaka ni mu ay sasin la dem ànd ak moom andi ko sasin moom mooy mooy mooy ñaari at yooyu. dégg naa ci ki nga xam ne moo mag ci maanaam sëñ Madou Lo Dagana muy di bàyyi yaay ci ki soxna Tayratu mu ne dégg na ci maamam mu ne ba muy dem am na fanweeri at ak juróom waaw xam naa ne ci digg. mooy li muy sëñ mu Ka ne xëy na kooku bisub talaata. Mm. nam mu ci géej gi ba naan xatmaata. Mm. ba weer wa ba ñu naan xatmaata mooy ba naan faatu na. ba weer wa dellu see ca diwen saag bis ba la door a seeru bàmba ngir pas pas ba mu jaari bànjul jaari wàlli sigi coor jaar karaban dem seeju joolaaye di buur karaban nag ma nga ca jookee ca kaasamaas moom dem naa fa ay yoon di fa gëstu yeneen ak lu mel la loolu karaban boobu espèce kaso la boo xam bi géej gi da koo wër nga xam ne koo jële fii ci boor yi boo ko fa yóbboo du am fu jaar booba nag doomi soxna yi nga xam ne dañ doon bañ ak euh, euh, ak ceddu yi doon bañ kuñ ci mosa jàpp foofa lañ lay yóbbu moo tax mu jaari karaban mu jaar euh, jaar karaban daf ko doon seet ba xam ndax sëñ bu mag bi foofa la nekk mbéet waaye ba mu demee fekk ko fa mu continue waafa nag dem naa fa ñu wax ma estuwaaru ne ma jaakeen wala bee ca dëkk ba ca ca gannaaw elenkin jëm Cap ak dëkk yu bari yoo xam ne ñu sant mbay nekk fa ak ñu sant faal ak ñu sant gay nee nañ ma ñi jële woon Kajoor ak Njàmbur indi leen fii ñu di bañkat ci doomi soxna yi biñ fi yàggee ba yàgg fi nag biñ leen génnee liibare leen ñibbisiwuñ foofa lañ sanc jël fa ay soxna joolaa ak yooyu moo waral loolu moo taxoon mu jaari karabaat daal sëñ bi la doon seet ba xam ndax foofu la nekkam leen waaw. ñu ñëwaat rek si maanaam turu dagana bi lan moo a turu dagana bi. daggana la sëñ Tuubaa ko fa saxal um, dëkkal ne ko toog fii dox naa la yow nga toog ci dagana ngir ku ma ak ku ñëw ba dikk na sëñ Tuubaa la àndal ba foofu sëñ Tuubaa ne ko toogal fii ku ñëw. bala moo jàll si nga yëgal ma ko bu waree bu nekkee ko war jàll si nga jàllale ko mu jàll si bu nekk ku wata jàll si du jàll si loolu ñu ne Seex Moodu Lo ma ca Dagana loolu mooy andi dafa fekk sëñ bu mag bi yaram bi ay godd nekk ci ay yoo ak matat yu baree baree bare ba yaram bi doo gis yaram bi sax yooye ngay gis ndax sëñ bu mag bi daawut wokkutu daawut faxas dara lépp lu ko dal day wax ne yàlla moo ko digal ndigali yàlla nag nangu na ko dañoo wax ne mamad loo daga ne dafa fab carub garab di ko faxas di ko faxas ba mu set mu dindi ñax ma nekkoon foofu yépp bale ko ba mu set mu rootal ko ndox andil ko sëñ bu mag bi ne ko ahmadou loo nii nga bàddilee nii nga ma bàddilee fii yal na la fi yal na la sunu boroom bàddil bàddilee nu mel noonu mu ne ko maa ngi lay ñaan daal lépp loo xam ne laaj nga ko sama borom ngir jox ma ko nang ma ko dencal ba yomal xiyam waaw nga soog ma koo jox foofu laa ko gën a ajo woo comme ni ñu ko waxee woon daal suñu mat loo dëgg na moom jàmbaar la woon boroomu fit la woon waaye nag fit wa itam li muy rëy rëy ku doon jëfandikoo am xelam la ndax xel ma moo may euh, manam noné ndax wax nañ ni sax euh, bi nga xamanteni ni dik na ba jup bobé dafa tok tambali di jang <clears throat> lam yeb du mislul mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraay samadi di yekati bu mu jag señ bi ne kaccit buntu ba genn jàkkaarloo moom nek na nako ne ana kooku muné ne ahmaduloo ko modu ngoy muné ko waaw fekk lu jitu loolu Modou Ngoye lañ ko daan wooyee fii ci Sénégal hmm. moom itam mu daal dina ko waaw waaw yow de sa na waaw soxna hmm. am na lu mu ko waxoon ci moom waaw li rek mooy mën waaw boole tam am ay baat yu mu ko fa wax yoo xamante ni umede. ndax melon ko ba ma ci ma de ni ma bu la koy dafay mel ne nag woo xamante ni nii <clears throat> ay doomam doon koo wër di nàmp maanaam nag wu bari soow ay doomam di ko wër di nàmp mu ne ko nag woowee nag su fekkee dafa réeroo ki doomam dem ba nekk ci àll ba nag ba gën a naat di nàmp ba wen yay wàcc maanaam doom ji ko fa fëkk jëkk fekk nu muy def mu ne ko xanaa nàmp ba doyoon mu ne ko noon nga demee ci man waaw daal ne ko Ahmadou bi ma amee garaatu li ma doon wut xaadimu rasuulullaahi yow yaa jëkk jébbalu ci man laa jëkk gis ko kon mu mel ne sëñ Modou Lo Dagana maanaam daal doy na kii man daal maanaam ci xëy na am na ñu ko jiitu woon ci sëñ bi waaye nag euh, am na lu ko sëñ bi defal lu rëy a daal waaw jërëjëf. allah macha allah suñ dam am na solo. waaw di sàkkuwaat rek moom benn dëkk boobu nga xam ni muy dagana nga xam ni si ndigalu sëñ bi moo ko sancloo ndax benn dëkk boobu rek la sanc wala wala déet. waaw dagan dagan dagan na boobu tax ñuy wax suñu mëtloo dagan sëñtu ko dagana a xamoo ko ab département la ci ci ci région ci ci région ci région Ndar foofu fa la gaaya nekk gaaya ak dagana ñoo dend foofu la maam Alaaji Maalik juddoo dëkk la bu yàgg yàgg suñu mëtloo dagana sëñtu ko foofa nag ba sëñ bu mag bi nekkee gaa gànnaar nag gaal gi nga xam ne mooy jàllale nit ñi fa fa sëñ bu mag bi nekk ca Sarsara. Dagana la daa teer. moo tax sëñ Mat Lo Dagana sëñ Touba bàyyi woon ko foofu nekk képp ku jëm si ci man nga jàllale ko ba ba mu agsi gaal ga ku ñuy wax mbay gi moo ko daan joow ñaar dërëm nga daan fay waaye nag ci biir loolu joxoon na ko. ay melo yi nit ne le ne ko ñii man nañ ma fa nañ ma fekk ñu melut nii nag buñ ma fa fekk ba tax noon na fa lool ci loolu loolu la doon jëfandikoo ko loolu waaye Dagana moom sëncu ko waaw sëncu ko moom daal loolu mook fa bàyyi woon dëkk yam sënc mooy fi mu gor sënc fa ay eh, moom ko nga xam ne moo fa gor mooy kër mbukki ngeer fu ñuy wax ngeer kumba dàgg mhm. ba mu fa sañcee ba noppi jóge fa dem ci gannaaw mbir kilaan fu ñuy wax gori mbaand gor fa ay tool mhm. moom itam sañc fa mhm. waaye ñaari dëkk ñii rek lañ xam waaye eh, am na ñooñ bu ñuy wax dañuy wax naan caayaako ko caayaa ko dëkkum maam Thierno sëñ bu maam mët loo dagana maam Thierno aw xeetam la bi fi sëñ bu mag bi jógee ci at yi jëkk yi ci maam Thierno la jébbalu woon ñu bari xamuñ loolu mhm. maam Thierno yóbbu ko caayaako ko fa la tarbiya ñu baree bari mbay sëñ mbay loo mais ca pir daana ko nettali di nettali pël yu mu fa kifiloo yu ñu fa doon joteel ak yooyu yëpp loolu mooy caayaako mhm. ñu xamul nag danañ di wax caayaako waaye caayaako dëkkub maam Thierno dafa yóbboon sëñ Modou Lo Dagana mu fay liggéey loolu la te it eh, lépp xam naa ne moom diine la ndax émission bi ëttu diine la kon lépp it moom jënul diine wax dëgg yàlla. waaw di wax ni te moom si comme wàllum si mbirum lu mel ni xasida yi euh, yum si daan faral di kii mel na ni sëñ euh, nda sëñ naam wax na ko léegi. bu ma saa toog. day dar bopp bi nii di wax laa ilaha illallah laa ilaha lool bari lool na ko lool moo dooneen itteem mm-hmm. ak wut ay xàmbi euh, ay mbànd yu ndaw ay xàmb ci taatu ron gi gi newoon ci wetu néegam bu xëyee ñu duy ko ndox ba mu fees mu sotti fa pepp picc yi di ko lekk loolu laa xamoon ci moom laa ilaha illallah daal ci lu dégg mu di ko wax lu bëree bëree bëree bëri ba gone yi ñu daa ko ay daa ko ñaawal ci naan danaan laa ilaha illallah ana awa Diop laa ilaha illallah ana awa Diop awa Diop soxnaam la soo xam ne si maam Thierno ko joxoon maam Thierno ko yoroon loolu la waaw waaye laa ilaha illallah daal jàngoon na li ñuy jàng lépp ndaxte waxtu woowa ña nekkoon njàmbur sant loo ña fa nekk ñëpp war a doon njiit dañoo organiser wu woon dañu waxoon ne ku mokkal alxuraan jàng laxdar yu ak risaala man a lugg jaan ber man ngaa ber ak ndaam moo tax ndaam yi bari woon bay juróom ñaar fukk ak juróom moom nag ci ci ñooñ la bokkoon waaw waaw waaw ci ñooñ la bokkoon soog caa teg lam cay teg nag waaw waaw loolu la day doon jàng alxuraan di jàng xasaayit waaye li may gën a ràññi man ba muy gone dadaa wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah lii daal moomu wér mën naa ko waat waaw jërëjëf waaw kon ñu daal di ñëw si kër gi ñu nekk rek maam kër gi maam cosaan li daal waaw waaw Mbàkke Bawol gi waaw fii ci Mbàkke Bawol sëñ Modou Moustapha moo ko fi indi fekk boo ma nga ca toolam yooyee mu ñuy wax ngeer kumba daga te léegi kër mbukki gën cee not waaye fa mu fa dëkkee moom daga na lañ ko tuddee sëñ Modou Moustapha nag moo ko indi fii ci gannaaw raay ci Mbàkke indi fi sëñ Ibra Joor Njaarnde ak eh, maam gi ak Njoba Fay daggal leen fi ay kër yu rëy ñoom dong ñoo fi nekkoon booba fii ak raay ba ay tool dafay nekkoon daana ay tool yu ay naaf yu nekk ak tool yu suuna booba mu boole leen fi nag na leen lépp lu bëgg nit bëgg xam sëñ mu Moustapha wax de ci sëriñ Touba na ñëw fii ci sëñ Modou Lo Dagana mu wax ko ko Ibra Joor Njaar ne na leen di jiite julli baraan yi na dox seen digganteeg tubaab bi njob ba fay na leen di wan tool yi muy ñeenti kër yi ñoo fi nekkoon xam naa ni kon foofu la ñuy taxawlu rek moom incha allahu rabbi euh, ni ngeen seen kàddu yi tàggatoo rek. waaw si suñ seen bi Senejet nga xam ni comme ni leen ko waxee rek wax dëgg yàlla euh, tànn si alxamis di ko def émission ëttu diine kon ni ngeen si tàggatoo rek sëñ bi bisimilah. waaw jërëjëf suñ Pape ñu ngi leen di. sant bu baax baax di leen gërëm ci wax dëgg yàlla dikk gi ngeen dikk fii waaw xëy na sax nag maanaam bette gi moom moo ko waral su fekkonte ni lu ñu waajal la euh, démb wala bërki démb ñu xamoon ko kon dana gën a yaatu te itam dana gën a leer ñu def euh, gën a def ab gëstu waaye nag euh, yoon yemul ci benn comme que yàlla dogal na ñoo ngi fi incha arab bi ndax xam nga bu ko suñ borom dogalee sax dafa mel ne tey jii mooy seen bu njëkk ci baraxlu wi te magalam gi mi ngi nek ñaar fan na juroom ñet ci barax lu waaw bu ñu bu koor gi kon léegi ñu ngi ci wajta yoy nak euh, ak wajta yu magal gi xamna da ngeen fi delu siwaat incha insha rabbi ñu gën ci def ay waxtaan yu gën am solo waaw di leen inviter yam ci magal ga ñewugul way ñu leen koy yegal diko yegal ñep nga xamanteni fi lañ ko fasiyene defé ci ci màggal ci ci ci atam bi adi yep febar feebar beeg li xawon ci jamono motax amul won waaw lu jiitu loolu itam ñu daan ko defee Touba ay màggal gi ñoo xam ne dellusiwaat na fii ci Mbàkke Bool ci kër Sëñ Modou Lo Dagana gi di leen sant bu baax di leen gërëm di sant suñu kilifa yi itam sëñ xaadim ak sëñ suwér ci seenuk oyef wax dëgg yàlla ak seenuk bëgg lu baax ndax daanaka ni kàddu yu mënoon nañ ci mënoon na leen cee bañ a fekk bañ ma joxe seen kàddu rek mënoon nañu ne sax dem leen fa ngeen waxtaane fa waaye itam lii lépp ak oyef rek ak bëgg lu baax moo ko waral di leen ñaan suñu borom guddal seenu fan yàggal leen suñ kanam barke seexul xadim wa wasalaamu ala rasulillah jërëjëf waaw jërëjëf xam naa sëñ bi kon nga def ñaan rek شاء الله جرجف ما شاء الله مولاي صل وسلم دائما ابدا